ñaan suñu borom tabaaraka wa taala lépp lu ñu fi def rek mu nangu ko te bégal ca Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy sunu sëriñ di sunu kilifa di sunu lépp ginnaaw bi itam xam ngeen ne ñi ngi doon waxtaane dundug yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba àggoon ci fi rañaan gi démb fi ñemoon mooy buntub rañaan gi li ñu seetlu nag mooy gàmm gi agsi na te lépp du fi xaj dund gépp du xaj ci waxtaan yi moo tax xam naa ne lu weesu tey dañ ko dog foofu ba bisu gàmm gi xam naa ñu waxtaanaat tuuti ci yonent bi ba ëllëg bu dewee déwénee ñu tàmbalaat foofu bu soobee la te nag ñi ngi woon ci buntu rañaan gi waaye incha allah dama ci jaaraale indiwaale melo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak tuuti ci ay ak ak yéemeem ci ni ko yàlla bindee alayhi salaatu wasalaam kuy wax nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga tudd ak yéeme ak yéeme nag bu dee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy wax mujisa mooy kiimtaan mooy loo xam ne nit ñi miinuñu ko loolu nag baluñ ci wax dana baax ñu def ab tàmbali bu gàtt ci ñiy jàngat dundu yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu ñi nga xam ne ñooy jàng ak dundam di ko jàngat ak di waxtaane siiraam ak ak jaar-jaaram nit ñu bari lañ ay xeet lañ téereb imaamul Buxaari ak imaam muslim yëpp fi ne booleen leen boole dindi mu kararaat yi motuñu fukki junni fukki junni ëpp ñu ko maanaam boo génnee mu kararaat yi xadis yi ci ne yëpp ëpp ñu fukki junni te amoon na kuñ daaw wax xaafis koo xam ne mokkal na téeméeri junni xadis parce que loolu da nga yëg ne kon ku bëgg ne ñaari téere yi rek xadis bu ci nekkul danga am lu ma sukkandiku xadis yu bari mu ngi lay raw ndax ñi tudd xaafis kenn xamu nuñ toll te ku ci ne mokkaloon na téeméeri junni xa téeméeri junni xadis ñu doog laa tudde xaafis am na ku ñu ñëw luñ daa tudde amirul muminina fil xadis mooy ku mokkal téeméer ñeenti téeméeri junni xadis te loolu lépp amoon na nga xam ne kon xadis yi ëpp na li nekk ci eh, sayxul buxaari ak sayxu muslim ñoom ñaar nag téere yu wér lañ yu jullit ñëpp ànd lañ wax lépp it wér na lépp it dëppoon naa li li nu ne kon bu ñu seetloo ñi bind ci ci ci gàmmu dama koy lim lim ndax sëñ bi indi woon na lépp maanaam xufaas yooyu daa indi nga xam ne ñëpp ci ay xam-xam borom xam-xam yi xadis la xaafis ibnu daxiya alxaafis bi nga xam ne moom la wax ibnul jazari samsu samsu diine xam ne mooy seexul qura ñi ñi jàng euh, maanaam qiraat ilmul qiraat moo ci seen kilifa ibnul jazari alxaafisul qastalaani alxaafis saxaawi ak alxaafis ibnu hajar al Asqalani, mom dañ ko tuddee amirul Mu'minin fil hadith batay am tey ibn abd Salam, dañ ko tuddee sultanul ulama lañ ko la ci jamono momit moy indi sax léegi juromi xaj yi borom darul moxti mi don don wax keroog muy ne bidaa dafa xaaj juróom-ñaari juróomi xaaj am na bu dagan am bu haram am buñ sip am bu war am buñ sop leral na itam bu ci ne indi na ci tektal moom sultaanul ulama dañ ko Izzuddin ibn Abdul Salaam ak it bu mag bi ñuy wax al iraqi maanaam Abdurra Abdurrahim ibnul Husayn Zeynuddin al iraqi xaafisul iraqi kooku ñëpp xam nañ ko téere imaamul Xasali moo ko jëlaat da am génne ahadis bu ne mu wax fa mu ne càmbaraat ko ibnu Kasir moo jamonoon teg ibnu Taymiya ñenn sax ab taalibeem la woon maanaam daana taalibeem mooy ni lii lañ jublu rek bu njëkk niñ daa jànge mooy kii jàngale day ñëw toog fi yorub téeram di jàngale ñooy ñëw ci jotaay ba diglu na ñooy lay wax say taalibe noonu lañ daa jàngee ibnu kasir daa ñëw ci jotaay majlisub ibnu taymiya di di di diglu si ci moom ndax ibnu taymiya ko féete woon mag ci li ci li ma jàpp alxaafis ibnu rajab alxanbali ibnu nasiri diin dimasqi alxaafisu wax abu saamata alxaafisu daybaxi alxaafis xajar alhaytami faqih la itam alxaafis alsabti almaliki abu tayib siraaju diin al burqini alcheikh almutaqid almaghribi eh, alxaafidu almaqdisi ibnul jawzi ñu ñëpp maanaam mënoo wax ci ci xam-xam te dudoo leen ñi may wax ni ñii mooy junni at yu njëkk ya ma waxoon bi sax ñu bari ñëw nañ ku mel ne mulla ali al qaari ak eh, muhammad nawawi al jaawi al zarqawi al zarqani ak zeyni ak ñeneen ñu bare bari ba nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi dund léegi si ñëpp maase nañ ci ne lii dara nekku ci lu wér la lu sax la ku ko def da nga am yool bu rëy rëy rëy ndax ak màggal la ci yonente bi alayhi salaatu kon nay gis ne kon mëtu téeméeraat ci lañ tàmbalee sikk sàkk mbir yu baree bari yi may wax ni ci yonente bi alayhi salaatu ak ci mbirum gàmmoog yi gaañu baax ñiy def waxoon naa keroog lay jeexale mooy bi sëñ bi kii mooy ñi nga xam ne ñoo ci bind téere téere yu bari nga gis ñu naan day sikk gàmm ñu ci bari seen borom ñu ngi dund fi ne nii te ñu ci bari sëñ maam Thierno mii leen raw fuuf ndax maanaam defub téere ak waxi arab yu jub tekkiwul xam-xam maanaam lislaam ay xam-xam yu bari yoo xam ne moo ko composé du ceegee ne rek tax na nga nga nekk borom xam-xam ci lislaam du ceegee ni da nga mokkal alxuraan kese tax na nga nekk nga nekk borom xam-xam ci lislaam du ceegee ni itam mokkal téereb xadis tax na nga nekk borom xam-xam ci lislaam lislaam ay xam yu bari la yoo xam ni maanaam da nga koy xereñe doog ñu doog laa tudde borom xam-xam ba xam-xam di dund boobu loolu la daam kon ci gisaal am na beneen madrasa boo xam ne ñoom maanaam dundu yonente bi ni ñu koy jàngatee tam mën naa bàyyi xel mooy ak màggal yonente bi itam amu ca donte nga xam ne bokkuñu tubaab yi aw yoon ndax gëm nañ ne yàlla am na gëm nañ yonente bi waaye seen mbir lu ci bari politique da caa lax ba lu bare bari ci ci màggal yonente bi génn ci moo amaan nag ñeneen ñoo xam nag ñoo nekk ca ca ca ngir ma ca yoon wa yonente bi alayhi salaam bëggoon muy li ëpp ci jullit yi nga xam ne ci gàttal rek mooy lii nu ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bàyyi woon ko fi gaañu ko jiitu nekkoon ci gis naa ne ñi leen rax ci ñi koy sikk bariwuñ xam nga ne amu amuñu kii sëñ Tuubaa waxoon naa ci ci koor mbir mu ne day seet la ci gën a jege yonente bi mu tànnal ko mu yi ne jàpp leen ci lii loolu boo seetloo te tekkiwut ne sax ña ci lañ nekk wérut waaye mbir mu ne day am tegtal yu gën a dëgër lu ci ne nag seet na ko ci pësteef bu kawe Sëñ Tuubaa doon ku bari pësteef te yonent bi ñoroon ko waxoon naa dara wax ne kalaamuhu laa ab abtaxi bihi badal maanaam waxi yonent bi duma ko jënde jeneen wax moo tax lépp lu ne rek maanaam day wér da koy wér ne lii yonent bi daana ko def dawul maslaa ci loo xam ne yonent bi digle na ko dëgg dawu ci maslaa moo tax lépp lu ne man sikkuma ne loola maanaam dara gënu ko jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim daa wax ne nabiyunal Mustafa xayrul wara garadi fii kulli shay'in moom yonte bi doon dakk di ko wër ak lam bëgg ak lam bëgg ko ci ne moo tax lam tànn toujours boo ko seetloo boo duggaate ci xam-xam bi bii téere yii ni maanaam te duggee ko xam-xam bu wér ak mën a gëstu ak xàmmee delluwaay yi di nga yëg ne lee mu ne dara gënu ko sax loolu rek laa bëggoon a indi kon kon moo tax gàmmu ak maanaam du jàngat siira yonte bi alayhi salaatu wasalaam ay xar baax ak mujisaat yoonte bi ci la bokk am na ñoo xam ne ñu ko bëgg a yemale ci alxuraan kese fekk alxuraan ci la moo ci jiitu waaye yeneen yu bare bari nga ca yooyu nag tey laa bëggoon nu nu nu nu nu jël ci yenn bu soobee yàlla bu nu ko waxtu yu mayee mooy ni yonente bi alayhi salaatu ci misaal ab bindam dinaay wax ne xam nga yeneen xar baax xam ngeen ko alxuraan sax bëggoon naa ñu wutal ko benn bis dama xamul ku koy def ci kilifa yi waaye boo xam ne dañuy wane yéem ak alxuraan ak yi waxoon bu yàgg te fi na nii scientifique yi découvrir ko xam ne lay alxuraan waxoon noonu la demee te booba junni at ak ñeent téeméer la ci ginnaaw loolu bëgg nañ ko wutal bis wala bu fekkee ren faat na tam ñu def ko ëllëg mooy alxuraan mooy li gën a yéeme nag ci kaw suuf waxee suñu borom la joo xam ni ba fi mu ne nii nit ñaa ngi ciy yéemu laa tantahi ajaibuhu la yonte bi waxoon maanaam ay ay ay kiimtaanam du jeex mukk waxtu ne scientifique dañuy découvrir mbir moo xam ne ndakate alxuraan waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu di ko doog gis tey te ba ko alxuraan di wax booba junni at la ak ñeent téeméer ci ginnaaw loolu xëy na bi bisu gàmm gu fekkee xatul ñu ñu ñu ñu dugal ko ca yonent tam yi defaat ne yeneen yeneen yeneen xarbaax yu bari yoo xam ne xëy na sëñ bi yëpp wax na ko ci ci ci xasida yi maanaam gis ngeen maanaam xasida goo jël rek. maanaam gis nga yonent sëñ bi lim na yéem ak yonente bi alayhi ak ya nekk ci moom waaye ci misaal dama bëggoon xaw a ci yonente bi ni ko yàlla binde xaw koo teewluwaat tax ku fi jóge xëy na mu mën a des sa xel ba boo dëkk ba ba fani gàmmu gi sa gàmmu maanaam yonente bi des ci sa xel ak ci sa ak ci sa xalaat ba nga mën koo sax gént xëy na yàlla ko yàlla taw feexal nun ñëpp gis ko moom yëmut ak dara rasulullahi sallallahu alayhi wa gis ko yëmut ak dara ña ko gisoon it kawé nañ ñu dul ñom gañu bax nit ku fi ñew dana lijeenti ba tek ku bët dok dok fe joggé ku ko gisit manam nit ñi ci bom yow sax da nga leen di doy gis nga serigne Cheikh Bamba li Cheikh ibrahim Diol Masari da wax da ko wax ne ko yow hadithuka li ka'sun min khamri mutribun wa dhikruka sahdun fi lisani mutayabu wa wajhuka badrun idha majtalaituhu tabarrada akbadi lati tatallahabu dal la si am da ko yow dama la tuta muñ man say wax mok sangaram yam ci xaw yam ci man damay tagal ak sama sago loolu do si seigne sëñ ne ko itam tudd sa tur wi rek manam mi ngi mel lem wo xam nang ko tek sama sama sama sama sama sama sama làmmiñ wi dara gën ko neex ci man ne ko sa kanam gi itam fuma ko ne jak rek sama xol bi bi nga xam day tak ngir mu metit metitu bëgg day daal di sedd guy fuma la séenee sama xol sedd seigne touba non non la meloon da ko ne ko wala anta ajmalu min sini maril, min sini maris sama mana yow yow ya dak di nga ma wer wi ab xar kanam loolu la ko da ak wax yo xamni wax yo xamni Cheikh ibrahim mom massari gis nga am nañu ko da ci ci mom da feñal li mag ni da dund ci seigne maanaam sëñ bi nag waxtu woon ci mujjam xam ngeen daa jàkkaar daa jàkkaarloog yonente bi leeru yonente bi di wàcc ci moom mujj nag kanam gi li waaj a wax yasiduka wajhuhu xusnan ida ma zittahu nazaran yonente bi foo ko gën a xoole yow sa kanam di gën a leer dalay dalay dalay defal koppi ci kanam gi dalay soppi sa kanam mujj nag kanam gi leer yonte bi moo ko fees sëñ Tuubaa nag waxtu wu ne nag li gënoon yéeme ci sëñ Tuubaa mais waxtu wu ne moom gis yonente bi ci ci lu ay nelaw loolu lu wér la lu sax ci lislaam la yonent bi moo ne ku ko gisoon ku gis ci nelaw mu ngi ci Saxiixul Buxaari bi di nga ko gis te yowmal moom jullit ñëpp ko fi maase gis ku gis ci nelaw ku gisul nelaw moo tax jëlaal din Suyuuti saxal ci téeréem bi mu tudde ne bi mu tudd ngir ngir layal loolu saxal ne ay xadis yu bari ak tegtal yu bari indi na ko ca wane ne li ci yonent bi jublu mooy fii nga koy gisee bala ngaa faatu am na ñoo xam ne nag bala bu ñu nee bay waaj faatu foofu la ñu koy gisee am ñoo xam ne yàlla dana taw feexal bala ñoo faatu diir bu yàgg ñu mën ko fii gis Cheikh Bamba yàlla da ko tawfeexaloon waxtu wu ne muy janloo sang ba alayhi salaatu wasalaam moo tax nag nit ñi it amuñu ci moom sago bu ma toppee loolu day gudd moo tax mu bëgg nu ñëw ci melo yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi da ko defal li ñuy wax xëy ba xëy ba mooy maanaam ku ko gis rek maanaam da koy daal di wekk Seydina Ali radiyallahu anhu la man raahu badihatan haabahu maanaa képp ko ko foo ko ne jàkk rek loo ko yab-yab boo ñëwee ba ne ko jàkk danga koy wegaat da koy joxaatub cër da ngay yëg ne yow mas mosoo gis lu mel nii am na bis mu ñëw ci benn bërëb benn jigéen séen ko rek tàmbale lox ba nar a daanu yonte bi ne ko bay looy def ni man doomi benn jigéen laa bu doon lekk fii ay seel ci mag du ma kenn ngir woyofal boppam alayhi salaatu wasalaam waye yalla ko defalon ak wego subulur rashad subulul huda wa rashad lim wax tere yi téere siira itam boko ko bo boo lit xam dunduk yonte bi gis na ne delu ci delluwaay yooyu mo bax subulul huda wa rashad tere bu mag la ëpp ne yakana naa fukki mujjallad ak nangam kiko def neena ñetti téeméeri téere sire la liir tuxale ci ay mbir indi fi da mel sax lam liir mom mat na junni tere way ñetti téeméeri tere la tuxale indi ci ci wa subulul hudaa wa rachaat def ming tuddu al alxaafidu sami alxaafizu saami ku ñu xam la mooy yuusufu saalixi assaami leeral na ca ne yonente bi aleyhi salaatu wa salaam li wax ne utiya yuusufu satral xusni mooy sayidna yuusuf yàlla da ko joxoon xaajub taar xaajub taar yàlla da ko defoon ci kanamam ga xadis boobu ahmad sayidna imaam ahmad génn na ko ak abu saybata ak ibnu abi ak ibnu asakir ak ñu bare bare jële ko sayidna anas mu wax ne yonte bi mu moo ne Seydina Yuusuf yàlla ko joxoon xaajub taar maanaam xaaj bu euh, ab taar bu doon fukk ci misaal juróom ya la yàlla dénkoon Seydina Yuusuf gis nga Yuusufa keroog keroog ba mu génnee ne tëll rek jigéen ñi na ak falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna maanaa paaka lañ yor di dagg seen yaram yi te yëguñu ne ñu ngi dagg yar seen seen loxo yi ñoom jigéen ñi ngir kanam gu rafet gi ñu seen muy kanamu Seydina Yuusuf maanaam taaram foofu la àggoon mooy bañ ko gisee ne gis nga seen paaka lañ yor di dagg loxo te yegu ne ñu ngi dag seen loxo ñu metti bi ngir lañ jakkalol mo ne xamal daara bobu señ bi kenn xamut kon lu mu mel la ci yeme tam moy am na ci jigen joo xamni dara dalu ko muy al aziz mom dëggut loxom te dekk naa mom bi set mu diko ko gisit masalan day di nga xamé nit ñi am na xamni mbir mu tuuti leen di daaneel am ño xamni mom moom yep mandi wu leen li mo doon wax dem ci Cheikh amadou Bamba ci radiyallahu anhu ardahu ci bayro zamitu wajitul bahr dama ko bañ bam wat waye mën naa bam wat ndax duñ ci doyal mukk mo li wax ni man dama dik ci géej gi maanaam ànd mar géej gi boo gisee loolu dina ko wax lu bari bari ci bir khassida yi waaye gis ni mom liko mandal mo bari wut manam lelek mu bi ka'sil qawmi manam ab kaas ci waaye léeg nga dégg mu ne ku oosu ko tasqiini maanaam ay kaas yu bari nga may joxandoo léeg-léeg mu ne mu ne mu ne ko wa anniya rayyaanun bi asfa maanaam màndi sax waaye teewul fajjir yanaa bi amaayil xëy bi fii xalaat yi maanaam gasal ma ci ab teen ci sama xol bi nga xam ne mujj moom ci moom di géej goo xam ni moom la naaru gànnaar boobu cheikh Mouhamad wuldu eh, cheikhul maalum albusaati ab qaadir la defon bayit yu rafet wako ne ko wa illa fan najaibu fi ta'ab ilayka wa illa fan najaibu fi ta'ab khadim alladhi halla bi hullatihi ka'ab علوت الورى كعبا وحجوك كعبة ومن كل واد ينسلون ومن حدب قطعت إليك البحر والبحر أنت هو وقاطع بحر نحو بحر من العجب فكن يوم تكوي موي من دملا ورسي دا كو دا وانا سانون ني جوغي مرتني saa ñu takkee suñu gileem yi wut si si amul bamba gileem yi dañuy sawar nongo dox boo jëmee beneen bërëb nag dañuy tayal duñ dem wa ilayka wa illaa fan najaayibu fii taab yow xadima alladi xalla bi xullatihi kaab mi nga ko xalawtal wara kaaban wa xajjuka kaabatan maanaam nit ñi da nga leen a sut sa tànk daa teg ci seen kaw da nga sa tànk daa nekk ne ñu leen seen moo tax ñoom ñëpp nag ñu wut si la di la di mel na yaay kaaba gi wa min kulli waadin yansiluuna wa min xadab qataxtu ilayka albaxra wal baxru antahu wa qaatiamu baxrin naxwa baxrin min ajab mooy man maa ngi lay wut si jaar ci géej gi fa te li gën a yeewu mooy géej gi mooy yow géej gi ma jaar di la seet yow la <laughs> te li gën a yeewu mooy nit ku jaar ci géej di wuti même géej gi loolu kenn mosu ko dégg waaye dangay gis ne sëñ bi kon dafa mujjoon am ci yoonte bi loo xam ni itam kawe na njort lii nuy waxee ak ëppal nekku ci lépp lu ko kawee sax noonu lañ ci xam ko su néew la ca dese ko ëpp te loolu la yàlla dogal jàmm bu nekk la la yàlla may yaxtasu bi rahmatihi man yashaaw yàlla daa am mbir yoo xam ne bu koy joxe yoonu kenn da ci dul ne yaxtasu bi rahmatihi man yashaaw man yashaaw mooy ku ko neex mu defal loolu lu ko neex te yoonu kenn nekku ci lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinina maanaam jaamam ñi dafa wax ne ñoom lu leen neex mu defal leen ko لهم ما يشاءون عند ربي ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا لون ديف تي لو خامني دو نونا اب سبان بكر ولا ما جيغل لنكو لون واي ديفيت لون ديف وايت ما ما ما فخ بو واجو جيغل لن ولا ما فايكو ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون لون ديفيت بن ما فولن لنكو اي تيمير تيمير اليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه مثلا غاني لي خبنا شرك ييب dañuy wax rek sëñ waaye mënuñu dox sa diggante sa borom parce que ja yàlla daa am ay jaam yoo xam ne leen tànn fonk leen kon loolu lañ waxee rek li ñu waxee ci seemul Amadou Bamba maa ngi ci jéglu fekkee eh, am na lu ma ci wax loo xam ni du noona waaye li ma doon wax mooy subulu rashad boobu huda wa rashad bu alxaafisu saami boobu boo ci demee ni nga gis ne moom wax na ne xadis bi ñu wax ne bi su yonte bi alayhi salaam wax ne yuusufa dañ ko jox xaajub taar nee na boobu al imaamul munayir ak zarkashi yëpp imam zarkashi ak ñu bare bari wax nañ ne xaajub taar boobu xaaju taaru yonente bi lañ jox yusufa alayhi salaam maanaam satrul xusni mooy léppi taar yonente bi alayhi salaam lañ ko jox xaaj ba nag xaaju yonente bi nag lañ jox sayidna yusuf loolu li koy dëgëral mooy beneen xadis bi nga xam ne moom la imaamu Tirmisi nettali ak ak daara qutni jële ko ci qataada ak anas ibnu malik radiallahu anhuma wax ne ma baata allahu nabiyan illa xasana illa xasana alwajhi ma baata allahu nabiyan illa xasana alwajhi xasana sawti wa kaana nabiyukum axsanuhum wajhan wa sawtan mooy yonte bi moo ne yàlla maanaam wala bokk saxaabi yi boobu moo wax ne ñi yàlla ñun ñëpp seen kanam day rafet te ki ci dàq kanam mooy yonte bi alayhi salaatu wasalaam kon da nga ci yéege ne yuusuf alayhi salaam yonente bee ko dax kanam kon xaaju taaru bi yonente bi lañ jox Seydina Yuusuf te gis nga Yuusufa ni nit ñi doon def ci moom Seydina Muhammad nag yàlla da ko jox taar ba pare boole kook ak ak ak jalaal ak hayba man ak wegu goo xam ne moo tax nit ñi duñ fitnawu ci moom bay dagg seen loxo comme ni doon def ci Seydina Yuusuf moo tax kanamuk yonente bi alayhi salaam dara dara melut ni moom sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu wax na ba tey wajhu nabiyi dil mazaayal afyadi axjale samsan muxjilan badra yadi maanaam kanam nga nee na maanaam moo gën a taaru fuufi ndolle jant bi nga seen maanaam moo këpp leer loolu sëñ bi maanaam gàcceel na itam weeru fukki fan ak ñeent kon yonte bi kanam gi da ngay ne ñi ko misaal ñëpp yi wax nañ ci taaru kanam boo xam ni bu leer la kanam gi itam li ci li ci mooy kanam gu leer la woon bayaaduhu musharrabun bi xumratin maanaam weexutoon tàll waaye weexaay boo xam dafa jaxasoo ak xonqaay la am na itam ay fepp-fepp yi ñuul loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy asmaru li sëñ bi wax loolu ñi nett li xadis ngi ci subul rasal bu am na ci ñoo xam nañ ko melale ne am na sumra sumra mooy fépp fépp ñuul yu rax yu rax ci biir xam ne maanaam weexu tàll xonqut cooy ñuulu titam yëpp nag couleur yëpp lañ ko booleel rek mu nekk benn xeetu couleur boo xam ne kenn mësu ko gis jébi nii dafa leerut naññi ba daa génne leer gi leer daa feeñ na sayidna naa aïsa radiallahu anha mas na ci nas puno puso lu xoromu maanaam doon nas puso ci lëndëm gi làmp bi fay sondel bi fi mu koy xoolee ne yonente bi génn da nga am xar kanam bi indaale leer goo xam ne keroog ca la fore puso bi ba nas ko loolu loolu loolu lu yéem la loolu itam mbooleem mboolem nettalikati xadis yëpp nettali nañ ko dama ci bañ a kii loolu waxoon naa ko sax ca ca koor ga indi woon naa itam yaakaar naa fa mu fa mu tegu wala boog lu mel noonu ba tey soxna Aysa radiyallahu anhu waaw loolu Ibnu Asakir moo ko nettali li ma wax léegi Ibnu Asakir moo ko nettali di mu xaafis bu mag bu ñu xam ba tey itam soxna Aysa mas naa benn bis nee na yonent xam nga doon ku bari aw ñaq benn bis nee soxna Aysa di ko xool ñaq wi di rot mel na ñaq wi dafa def ay feppi leer yu ànd di toq suuf si neen na ma ne ko jàkk mel na ko jaaxle ni mu jëkkee xool ma ne waaw loo may xoole looy xoole ni ma ne ko man maa gis sa ñaq wi ànd ak leer di toq ci suuf ne ko yow de bu la waykat ba gisoon ki ñu wax abu hil uh, uh, alhudali waykat boobu bu la gisoon dana xam ne yow yaa gën a yay ci ca wayam ya abu kabiril huzali bu gisoon dana xam ne yow yaa ci gën a moo mu ne ko abu kabiril huzali lan la waxoon mu ne ko dana woon ida nazarta ila asirati wajhihi baraqat ka barqil aaridil mutahallili maanaam kanam la goo xam ni day mel ne luy melxat boole kooku leer noonu la ko misaal masalan kanam kanamu yonent bi alayhi salaam jébal dañuy wax dafa leer nañ ba bare da ànd ak leer goo xam ni maanaam wuute nag maanaam xar kanam yëpp ndax ci guddi gi ñu bare bari dañ dañ daa gis muy muy leeral bër bi bi loolu yéemu la ci ak dundam da xam ne kooku ab bindam kon ba tey wute na ak ak bind yu bare bare bari loolu bari na ci ay xadis yu ci dama koy tënk rek xam ngeen ne jaabir ibnu samurata loolu la loolu la nettali nee am na guddi may yonente bi toog may xool xar kanam bi di xool weer wi waaye xar kanam yonente bi <laughs> moo gën a neex ci man gën a leer ci man weer weene jaabir ibnu samurata nekk noonu itam maanaam maanaam maanaam bakkan bi ni ko sëñ bi doon misaale keroog rek bakkan bi dafa xawoon a jóg waaye aggut nag ci rëy ba ëpp mooy ir niinu hudu chamami la Cheikh mu wax maanaam bakkanam dafa xaw a jug tuuti tuutiwut bakkat yu tuuti tàmp ndaar defu defu noonu dafa xawoon a jug waaye aggu nag ci rëy bopp ba doon bakkan tubaab yi nga xam ne gudd a <laughs> gudd nekk noonu lex bi ka ànd na ma dahabi fii xaddihi l muhadabi maanaam lex bi dafa moom dafa gënoon xonq yeneen yeneen bërëb bi kanam lex bi dafa gënoon xonq kanam gi nag dafa xawoon a kuppandalu mu dawwaru dafa xawoon a kuppandalu nekk noonu xar lex bi dafa moom it dafa gënoon xonq yeneen bërëb bi kanam gi kawar ga dafa wàccoon bari lool daa wàcc léeg-léeg ba suuf da ko daa takk nag di jëpp nekk noonu itam gimiñ gi dafa yemoon maanaam yaatuut ba ëpp waaye wëcc gëttut ba tuutut ba ëpp bu ñu wax ñi koy misaal bu ñu wax naan guddi gi dafa guddi gimiñ gi dafa xaw yaatu li ñu ci jublu mooy loolu waxin la kinaay la ci fasaxatul lisaan wa balaxatoo lool la nettalikat yi euh, maanaam borom xonq xam yi wax kon nee noonu bi ko noonu bëti bëtam bët yi itam dafa xaw a yaatu ba pare weex taal li ci weex ni dafa weexoon tal la cay ñuul nag dafa ñuul kooku moom ba pare mu am ay sidit yoo xam ne yu sew la ci biir yu xonq nekk noonu lii nga xam ne moo nekkoon ay yéenam dafa dafa guddoon nii ba pare dafa ba pare da nga am kupp ndalu nii wàccoon ba ba bëgg a laal ak ñaar yi maanaam nii la defoon dafa gënoon a jegante ba nga xam day waaj ñaari ñaari yéen yi dañu mel luy luy laalante ba pare dafa mel ni ak xala loolu lañ ko loolu lañ ko maanaam dafa kupp na lu nii ba pare sew nag ba pare xaw a gudd maanaam xef yi dafa gudd alayhi salaatu wasalaam nekk noonu it xam ngeen ne bëti yoonte bi alayhi salaatu wasalaam li daa gis ak noonu li ñuy gis bokkul yonente bi daana toog fii ne uridat alayya al jannatu fi fi ardi hada al xaayiti masalan ci jàkka ji mu ne fii ci sama kanam fii nii gis naa fi àjjana keroog bi nga xamee ne rañaan na ba ñëw waa Màkka bañ ko weddee dana toog di leen waa Màkka dañ ne ko yow nee nga dem nga baytul muqaddas mooy fële ca Palestine te yow mosu faa tukki moom léegi leeral nu dëkk ba demee nun mos faa dem leeral nu dëkk ba demee ak koñ yaag marché baag yooyu fu mu yonte bi nee na ma ma nar ci am ak jaaxle waaye nee na jibril damaa indil dëkk ba tegal ma ko nii mel na télé man leen wax naan fii boo fi jaaree am na kii am na nangam leeral leen dëkk ba yëpp ba ñëpp ne daal noonu la dëkk ba demee nga ne kon fi mu toog ci biir nit ñi daa gis yeneen mbir yoo xam ni maanaam ñaareel bi itam yaraa waraa awa ñëpp net lañ ko net li kat xadis yëpp mooy mas naa taxaw loolu am na boo xam ne ci ajuma la ko wax mooy moom da leen daa wax ci njëlbeen bi ñu doog ko farataal julli mooy defar defar leen seenug julli sama ginnaaw ndax man ni may gisee li sama kanam laay gisee la ca ginnaaw maanaam bët yooyu kenn mësu koo gis bët yoo xam ni nga boo xoolee fii lu nekk ca ginnaaw nga gis ko mas naa sëlmal ne diw yow ni ngay rukkooyee seetlu ko <laughs> loolu dara gënu ko yéeme nekk noonu guddi bu bu lëndamee këris du teemu gis yooyu bëtit xoromu na masalan bu lëndamee këriis ba kenn gisut noonu fi ne bu làmp yëpp fayoon fi ne kenn du wala boog man li saa bopp la moom ni daa gisee ci bëccëg noonu la daa gisee ci guddi donte te lu ñu làmp waaw nekk noonu it <coughs> loolu it xawoon nañ ci mën a leeral ne lu mën a am ne yonte bi alayhi salaam moo wax ne jaamam ñii rek jaam yàlla yi ku ci góorgóorlu yàlla fa ida ahbabtuhu kuntu basarahu alladi yubsiru bi yow mujj nekk say bët moom sunu borom tabaraka wa taala ittaqu firasata al mumin fa innahu yanduru bi la yonte bi wax maanaam ab mumin nee na na moytu am xelam ak ñawam ndax ci leerug sunu borom lay xam lay xoole te moo tax day gis yeneen yu bare bari yooyu nëbb yooyu nëbb yu bare ba da koy xam ab mumin rek la wax de kon nag yonte bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy sangu muminoon yi kooku waxi noppi kon nekk noonu itam nekk noonu itam ay bëñam dafa awoon ak sorante li ñuy wax sàkkar yàlla moom la amoon li ñuy wax sàkkar yàlla moom la amoon nekk noonu itam euh, léppam daal noonu la demoon alayhi salaatu gémmiñam gu tedd googe itam waxoon naa léegi ne lu yem la woon agut ci rëy bu agut ci tuuti ba ëppit waaye la ca daa génne moo xam lu mu mën a doon rek saafara la ci gàttal xam ngeen ne sayidna aliyu imaam Buxaari nett na ko muslim yi euh, maanaam maanaam xaybar xareb xaybar moom la jox drapo bi raaya bi waaye ba mu koy wax dafa wax suba dina jox raay bi ko xamni ni da ko bëgg akub yonenteem yonentem momit mu bëgg ak akub yonentem sahaba yëpp ne guddigo dañu fanaal mebeer kenn ku ne bëgg doon sa bop bëgg doon mom waaw keroog yaakaar na sayyidna umar wala amna ci kenn ci sahaba yu mag yi ko xamni na keroog rek la bëgg la la la la bëgg ak pal keroog la ma sa yegne bëgg na ak pal nak lool dal bëgg na ko doon neena nak ci bañ xëy mu woolu sayyidna ali ñu ne ko ali de mom bëdia met metti wanen wànneen te bët mënta mënta mënta gis sax nak mu ne na ñëw rek bimu mu ñëwee bi da ko tifli ci ci bëtam yi mu da di wër pelek melé musta musta wanen mu jox ko raay bi ne ko demal and ak ñam xare ji loolu am na ay yoon abou Aboubacarin Siddiq bi nga xamé ni ngi gaday xam nga abou Aboubacar da ko jiitu ci xuntu mi sak buntu ak pax yi pax yu sew mana nyom li ma waxoon dem ai ay ay ay ay ay borom positif lañu woon sedna Abu Bakar bim bi ba aksi ci xunt mi da jiitu yonte bi ci biir simmi mbubbam dagg ko sakk di nga am pax yi ci nekkoon fekk nag fàtte na menn pax moo xam bi yonte bi duggee alayhi salaam fekk yonte bi guddi ga jitu jiitu na daa sonu ai ay taxu tax ko ja napul noppal bu am solo motax moo tax keroog yonent bi son bi mu duggee rek nees tuut daa tàmbali nelaw teg boppam ci luppub Seydina Ali Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar fi mu toogee ni yonent bi teg boppam ci ab tànkam mu seenu pax daal cee teg tànk ba bañ dara génne fa ndekete pax mi jaan moo ci ne jaan coof tànk bi mu ko ndax bëggut a yëngatu sang bi di yow alayhi salaatu wasalaam nee na jaan ji cofaat tànk bi ba mbir ma mettee ba mett nag ronkooñ ngi tuuru dal ci leexub sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na sayidna muhammad daal di yewu ne waaw lii lu mu doon mu ne ko nag jaan ji <laughs> dama ko fàtte woon sakk fi moom mooma xaw a lor waaye yonte bi da ko tifle rek dégg maana maanaam tànk bi wér rek jaan ji wàcc matt matt bi jaan bi wàcc parce que da ngay gis ne kooku kon la génn ci gémmiñ ga ci li ñu tuddee ay lor ci noonu itam lu yéeme la woon lu bare bari ci ay teen yu nekk biir Arabie Saoudite ak biir ak ak Yaman ak feneen ak feneen yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ doon ànd di xeexi wala yooyu loolu bari na xadis yu bari moo ci rot imaam Ahmad ibnu Maaja al Bayhaqi Abu Nuaym nett lañ ay xadis yu bari bari kenn xamu nu mu ci xadis mooy ay teen yoo xam ni dañuy dem ba àgg fa ñu mas ko ne ko teen bi de ndox mi daa saf sapp xorom mooy leen indil ma ci ab ab ab kopp maanaam nañ ma ci indil tuuti ñu jox ko mu gàllaxndiku ci gémmiñ gi rek daal ko ci yàbbi teen ba sa maanaam xorom si dañ mu ñu segg xorom si maanaam mu daal di nekk ndox mu neex moo xam ne kenn mos a gis ndox moomu loolu bari na loolu ci ay teen yoo xam ne ba léegi si ña nga fa biir Arabie Saoudite ak ak ci biir réew réew réew yi réew yu bare bari mi ngoog ak <coughs> yu bare bari yoo xam ne xam naa mel na ne waxtu wi lee mu mooy aw ñaqam waxoon naa ko boobe noonu ñaq yonente bi alayhi lu yéemu la mooy ñaq bi Seydina Anas nee na maanaam Anas ibnu Malik nga xam ne moom mooy taalibeem boobu taalibeem boobu nga xam ne yaay ma ko jébbaloon Ummu Salim moo nekkoon yaay so Seydina Anas ibnu Malik radiallahu anhum ne um um umu salim mom yonte bi dafa dem le rek ci bobu di noppalu bëccëg gi waaye yonte bi da bari wona ñak bu ma sa ñew day ñak toy xep ba ñak wi ta ci bi ne way umu salim dara ñew wut wut ab ab muswar tek ko ci bam naan ñak wi mu di sietalat ci ab kop, wa dekk bi bobu dañ fa daa diko diko ko ñaan ñak woowu ngir dañ koy ak seen seen parfum yi ñu am da koy neexal maanaam day neexal parfum bi maanaam ñàq yonte bi moo gën a neex moo gën a neex parfum misk lañ wax maanaam loolu la Anas ibnu Malik wax ci imaamul Buxaari Muslim Ahmad Tirmisi ñoo ñëpp nettal nañ ko mooy kaana araquhu atyaba tibi maa chamamtu riixan qattu aw araqan qattu atyaba min riixi wa araqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala chamamtu miskan wala itran atyaba min riixi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay riwaayaat yu bëri bëri loolu lu ci yéeme la woon ci si ci yonente bi alayhi salaam mooy ñaq bi daa ko ci moom loolu buñ ko toppoon dana dana bari lool am na ku ñu xubay nu asaf ci saxaaba yi la bokkoon ku yéemu la moom it yaakaar naa xaswatu uxud la moom danoon xare ni xam nga ay jaasi lañ noo xare dóorante ni ñu mujj dóor ko jaasi ci loxo bi ba loxo bi dagg xam na jaasi ji daa foor ba nga xam ne mujj na deru yaram wi rek moo téye loxo bi nga xam ne moom ci moom am na net net yoo xam ne da ko da ko bëggoon a dagg sax ngir mu bañ koo lëkkal maanaam jéem ko dagg-dagg mu xaw a të mu dem ci yonte bi wax ko ko yonte bi tefli daal di koy boolewaat mu mel ne dañ ko dañ ko monte waat dara boobu la gën la wér pelek nga xam ne ca la dem ray waaje ko doon ja ko ko daggoon ginnaaw bi tam mu takkaat doomi waaje soxna lu yéemu la lu yéemu yéemu la loolu itam lépp maa ngeeg eh, delluwaay yi mi ngoog imaamul Bayhaqi moo ko nettali ci fi Ad-Dalaa'il ak imaam Ahmad nettali na ko itam mi ngoog Xubayb lañ ko wax Ibnu Asaaf ak yeneen nettali yu bare bare bare bare lu gën a yéemu itam mooy Sayyiduna Xasan di ab sëtam doomi soxna Fatima radiyallahu anhum jamian dañ ko mas a bàyyi yonente bi dañ wax boobu xale bu ndaw la buy nàmp yonente bi xool gisu gisut gisut waa seen waa kër soxna faa Fatima nekk fa ñu bàyyee ko muy xale bi te mi ngi jooy te xam na ne xiif lay jooy mu seexal ko làmmiñam muy nàmp <laughs> ci ci làmp ci ci loolu nga xam ne daa namp ba suur bàyyi jooyee lu gën a yëmu itam mooy maanaam loxo bi yonent bi xam nga xareb euh, Xudaybiya sul Xudaybiya loolu sax du xare waaye sul Xudaybiya ba ñu dañoo doon bëggoon aji ñu aayi leen Xudaybiya fañ defoon sulxu ba mooy accord ya foofa ba ñuy dem ñoom mat nañ junni nit ak juróomi téeméer loolu mi ngi ci sixa yëpp Buxaari Muslim ñëpp net nañ waa waaw la boo xam ñëpp ci dëppoo xadis bi ñëpp dëppoo mooy ginnaaw alxuraan loolu dara gënu ko wér maanaam su boobu sulh Xudaybiya bi boobu maanaam la ci yéeme mooy dañoo def foofu ñu tolloon dañoo mujj ndox jeex amuñu ndox ñoom arab armée bi yonte bi ak ñi mu àndoon bëggoon a aji yàlla dogal nag waa euh, maanaam saxaaba yi ñëw ne ko kat sëñ bi ndox mi jeex na te fii teen amu fi te ñu ngi ci àll bi mu ne leen lan ngeen yor ci ndox ku fi yor dara ci ndox na ko indi ñu xool ay siitaat kenn ku ne mbuus gi yoroon benn toq ñaar dajale ko ba muy ab góox wala ñaari góox lu xaw jege mu def ko ci benn bool dugal ca loxo ba ñu seen ndox mi di génne ci xarante yi baaraam yi mu leen kaa leen tanq gaa yi ñëw tànk duy seen i ñi duy seen i baag ñi duy seen kii ba ñëpp feesal ñii naan ñi jàpp ñi def lañu daa def lépp loolu mooy wan fajaral maa un namir min yadi di takarrumi la Cheikh Amadou Bamba loolu lu yéemu la sëñ Cheikh Amadou Bamba itam ni mu doonoon yonent bi itam loolu lépp dalaa feeñ ci moom loolu foofu laay jeexale ndax waxtu jeex na mooy ci njaareem gi Cheikh Sidi Ahmad wala ismu téere bi mu def tuddee ko almaqulaatu fil xaadisaat wax na ca ne ci mas maanaam moom daa mel ne sax na mu waxee da ne ku wér ku mu xam nettali na ko Cheikh Sidi Ahmad wala ismu téere bi Cheikh Amadou Bamba la woon Mauritanie gee bari na fa mooy seen sëriñ ba léegi docteur Mouhamadul Ahmad Misk mi mi ñuy wax ab taalibe ma si am lu des mu nett na ci téere boobu ne maanaam ab jataay la boo xam ne sëñ bi xam nga dara bu ma julli ci jàkka ji léeg-léeg mu jàngalu alxuraan waaye léeg-léeg mu jàng xasida itam bis boo xam ne dañ doon jàng xasida ki doon jàng di jàng jës te sëñ bi xam ngeen bu ma di jàng xasida fi ne du nangu kenn wax di bëgg ñëpp ne cel di déglu xasida yi maanaam jataay bi kenn ñëpp ne na celaw loolu nak da ko daa diglu mom bam yobbu ko ci xal bu kawe kawe lelek bis bobu nak si raxam lu mu neena mom moko moo ci téré bobu neena señ bi da tok di wa jang jess bu ba ag ci wan fajaral ma'un namir min yadi si bi takkaru mi di nettali xew-xew bi amon ci yonte ba ci loxo ba ba ndox may genn ci mom ñu jekkee ci seen fi señ bi ne ndox mi genn ci ci loxom nga bërepp bi dafa taaba señ bi sa jëm na ko laq duggal ci loxo yi ndox mi mëna su ko laq dafa dafa sawar duggu duggu ci duggu ci gaay ñu xam neena yu xey dèjà barikar ku bari sa yooyu bëgg ci woon feeñal dara Cheikhul Bamba radiallahu anhu ardaahu wax ji du jeex te wóor na ma man neex na ci man mi koy wax <laughs> xam naa neex na ci xol yëpp waaye foofu la waxtu yëpp noo ngi ñaan incha allah yàlla defal nu tawféex e, ëllëgee nu nu man ko àggale suba sëñ Ahmadou moom sëñ Basiru mooy waxtaan indil ñu ay bind ci dunduk Cheikh abdul Khoudous mi nga xam ne moom la ñu waajal bis biñ koy defal fii bu ko dee dibeer itam dañuy noppalu bu soobee yàlla su gàmm ga nag dañ defaat beneen waxtu comme nii rek xam naa ko ku fekk mu fekke ko bu soobee yàlla benn waxtu 9 heures 10 heures bu soobee yàlla bi ñu ko def nii noo ngi ñaan yàlla defal nu tawféex defal nu xéewal ci lépp lu ñu ci wax mu néew bari yàlla na ko yàlla def njariñ te saare ko ci mboolem bokki ba yépp maa ngi jéglu bu baax wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أثى الفلك كالخمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بحمد وسكر وحولي كان بالسجم مرادي كوني حفد ربي قديم من أقاتب بالسور والحب ساعصمي مساياك يا كلي لدى الكل خجلات ولكنها جلات أنيس عر والنسم مقامات خير الخلق عن خير ربه مقيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف معين ومانه وبالعس مخصوص مسون حن الوسم مجيب مجاب مبتدا محلك حدا مبيح ومبهوس إلى الحرب والحمي مديء جلاها حناد جانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة هلم مرتجا منة لنا جريء ومنج من صنوب ومن سلمي مها الله حني بالنبي كل فاسد وسرت به حبدا قديما بلا قمي من الله رب الحرث أبخي صلاته بتسليم للمصطفى المخجل اليمين من الله رب الحرس أبخي صلاته بتسليم للمصطفى المخجل اليمين